njeexitalu guerre bi nga xam ne mu ngi am fële ca Ukraine waxtaanee nañ ko nag ci forum économique africain bu Abidjan nga xam ne sax njiitu réew mi Macky Sall di président bu Union africaine teew na fa wante itam njiitu réew bu Niger ak njiitu réew bu Côte d'Ivoire moom président Macky Sall nag xamle na fa ne li nga xam ne moom mooy xiif mu ngi yoot continent bu Afrique gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi dëgmal nawet te ba léegi lii di engrais bi nga xam ne mu war a bàyyeekoo foofale ca Ukraine mënul ñëw fii ci Afrique moom nag Macky Sall muy woo ñi nga xam ne ñoom ñoo séq xeex bi muy waa Russie ak waa Ukraine ñu xool daal nan la ñu mën a yombalee loolu la di engrais bi ñu mun koy exporter fii ci Afrique comme niñ koy defee ak gaz bi ñuy exporter foofu la ci Europe agence nationale de l' aviation civile et de la météo météorologie muy waa météo yi nga xam ne ñoom ñooy saytu jaww ji ñoom nag xamle nañ ne ay taw yi nga xam ne tàmbale na euh, depuis le douze bi ñu génn ñu ne nag euh, dina dem ba le dix neuf juin ñu ne taw yooyu nga xam ne nag euh, taw yu am solo lay doon te sax ànd ak ngelaw daanaka dina laal Sénégal di yëpp. démb ci mardi bi ki nga xam ne moom mooy juge d'instruction bu tribinal bu Thiès moom nag euh, placé na su mandat de dépôt maanaam yóbbu na kaso euh, ki nga xam ne moom mooy chef maintenancier bu hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh bu Tivaouane euh, ba nga xam ne fukk benn ci ay xale ñoom ñoo fa ñàkkoon seen bakkan ci ab lakk moom moom leen nag di chef maintenancier bi moom mooy ñetteelu nit bi nga xam ne yóbbu nañ ko kaso ci mbir moomu gannaaw ab sage-femme ak ab aide infirmière boo xam ne kon jotoon nañ leen yóbbu ndungu siin xibaaru Afrique ca Burkina Faso foofu nag euh, dañ fa décréter euh, deuil national muy ab dëj boo xam ne kon dëkk bi yëpp ñoom ñoo koy bokk euh, defandoo ngir daal kon ñaanal seeni ñoñ yoo xam ne dañ leen fa faat ci dëkk bu ñuy wax Saytenga foofu nag samedi bi ñu génn ay defkatu ñaawteef ñu yoo xam ne dañoo yor ay ngànnaay ñoom daal ñoo fa dem attaqué leen ba sax faat ca lu toll ci soixante-dix-neuf buñ sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne moom la autorité yi mujjee joxe. waa l'armée bu France ñoom nag dañoo xamle ne ci ab opération boo xam ne force Barkhane mu ngi ko doon amal euh, ci wetu frontière Mali ak euh, Niger euh, ci guddik le 11 jàpp le juin dafa tax daal ba ñu teg loxo benn koo xam ne daal kon responsable la bu mag sax nekk ci organisation état islamique au grand Sara ñu ne moom nag moom nga xam ne teg nañ ko loxo moom moo doon jiite sax opération yi nga xam ne eh, ñoom lañ doon amal ci région bu Gourma ca wante itam ci nord bu Burkina Faso ñu fàttali nag ne ñi nga xam ne ñoom ñooy militaire français yi nekk foofule ca Mali war nañ fa juge ba jeex takk balaa nawet bi di jeex. xibaar bitim réew benn ponk lay doon muy ca eh, réewum. Eh, Suisse foofu nag euh, bésub tey bii daal euh, dañoo amoon ay jafe-jafe euh, ci wàll kon seen ku liggéey ba tax aéroport ba ay waxtu yu bëri ñu tëjoon ko avion mënul naaw avion it mënul wàcc foofu loolu sax tax na ba ñi nga xam ne mooy ay avion yoo xam ne kon ay vol internationaux la yu waroon dem Suisse dañ leen mujjee kon détourné ñu wàcc fi nga xam ne moom mooy aéroport bu Milan bu Francfort wala bu Munich ñi nga xam ne nag ñoom ñooy autorité aéroport yi daal dañoo xamle ne kon euh, ab euh, panne euh, la ñu amoon wante nag mbir ma sax commencé woon na ñu koy réglé kon ba aéroport ba commencé woon fonctionné waat. dañ koy jeexal xibaar sport li nga xam ne nag moom mooy équipe nationale bu Sénégal bu basket ñoom nag tàmbali nañ ab stage wala boog dinañ tàmbali ab stage de préparation le 22 jàpp le 27 juin. balaa ñuy dem kon fële ca Égypte le vingt huit juin ki nga xam ne nag moom mooy entraîneur bii di Boniface Ndong publié na ab boo xam ne dix huit joueurs euh, lañ ce woo euh, ngir daal euh, stage boobu nga xam ne kon daf leen di préparer ñu waajal coupe du monde basket bu deux mille vingt trois li nga xam ne nag moom lañ demeeku ci boobule liste moom mooy teewaayu Clévin Ana ak si Dieng mi nga xam ne eh, match yi ñu mujjee jongante teewuñu si woon lii lañ leen indiloon tey ci ay xibaar di rafetlu seen teew di leen sox daje ëllëg jëf